mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen ànd ak ñun ci rajo Rewmi FM dimanche bu jot ni leen koy fas yéene di ko amalee muy seen émission gox bi 16h euh, jàpp 17 fii ci rajo Rewmi FM tey ñu amaat ci mbégte bu yaa di ci dalal ki nga xam ni moom moo di docteur Cheikh Dieng maire bu commune bu Djiddah Thiaroye Kaw ñu ngi lay sant di la gërëm ci ni nga nangoo ci li nga xam ne moo jëm ci sunu invitation monsieur le maire. Euh, sëriñ Mbemba maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziare bu baax a baax di la remercier si sa invitation bi tey dans ces moments euh, de grand trouble que euh, le Sénégal vit mm-hmm. donc ma bëgg nuyu ziare bu baax a baax ñëpp ñi nga xam ni mm-hmm. donc ñu ngi ñuy teewlu ci sa émission gox bi ci la réew Rewmi FM. Mm-hmm. alors monsieur le maire xam naa ni actualité bi yitteel na la loolu euh, bien vrai que li euh, li ni mel ñu bëri ciy wax waaye xam naa ni dinañ ci ñëwaat waaye nan waxtaanee si gox ak goxaan yi ba pare tey ci biir manifestation yooyu le am na ci ñoo xam ne ñu ngi jël euh, mairie yi di leen attaqué di leen yàq li ni mel itam xam nañ ni coono gi muy ñëw jural après ni ëllëg ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk ci commune yooyu maa lay remercier maa lay remercier bu baax a baax si sa question bu njëkk boobu nga posé question la bu am solo parce que tey Sénégal dañoo nekk dans une situation émeutière émeute boo ko déggee mooy mooy ay nit yoo xam ni kenn contrôle leen mooy un affaissement de l'État un affaissement de du système de sécurité de de sunu réew et ça montre à point la sécurité est importante dans un pays émeutes yooyu gis nañ ay biens publics yoo xam ni dañ koy toj ay biens privés yoo xam ni dañ koy toj ay nit ñoo xam ni dañ leen ci gaañ mais gis nañ ci surtout eh, foofu laa bëgg a tàmbalee ay nit yu bare bari yu ciy ñàkk seen bakkan mhm. tey xamaguñu exactement bilan bilan bi mhm. parce que ministre de l'intérieur nee na démb mhm. ñeenti nit ñoo si ñàkk seen bakkan journalistes yi li ñu dénombré àgg na bu fukk ak juróom yoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan ci su ma jëlee décompte yu journaliste yi def mooy ne entre quatre et quinze nag am na une grande différence ñaata blessé ñoo ci am tamit bari na ñaata nit lañ ci arrêté ñu nekk ci kaso yi bari na je pense aujourd'hui que euh, ministre de l'intérieur war naa def benn bilan benn bilan sincère benn bilan transparent mmh. donc du nombre de décès, mhm. du nombre de blessés, mhm. du nombre darestation donc qu'il y a à travers ces émeutes. Mhm. mais damaa bëgg balaa ma ci dugg vraiment ma euh, ma sigindigaale famille yi ñëpp ñi nga xam ni ñàkk nañ ci seen bakkan euh, ñaan ñi ci génn àdduna yàlla yàlla xare leen àjjana ñaan également donc ya euh, yàlla ñi nga xam ni donc am nañ ci ay gaañu gaañu yàlla fëgg seen bopp ñu teel a dellu ci seen kër mais surtout demande au président de la république ni ko euh, communiqué parti démocratique sénégalais defee démb ñu libere tous les prisonniers politiques yi nga xam ni donc à travers donc ces émeutes donc euh, lañ leen euh, tëj wala balaa émeutes lañ leen tëj muy Ousmane Sonko muy Guy Marius Sagna muy Assane Diouf muy Euh, muy muy muy Clédor Sène euh, muy Guy mari Sagna muy également ñi nga xam ne duñ leen tudd te ñoo ñoo ëpp donc euh, je pense que bilan bi ci mu mujjee def dëgg nañ ci soixante-dix-sept prisonniers politiques yoo xam ni donc tey ñi ngi ci kaso Macky Sall yi ñi nga xam ne dañ leen arrêté à travers les les régions peut-être dinañ ci ñëwaat dans le cadre d'une solution global boo xam ni donc war nañ ko am pour ramener la paix et la sécurité pour ramener la sérénité dans ce pays président Macky war naa loolu war naa bokk ci initiative yi mu jël je reviens à ta question mooy bien public yi ñuy euh, yi ñuy attaqué en particulier mairie gis nañ ko fi daw waa Kër masaar bi ñu amee lu leen naqari ci seen marché population yi dañoo attaqué mairie ba détruire état civil mairie bi il y a important boo xam ne population yi ñoo ko moy état civil état civil parce que nit ñi dañoo xamut mooy lan état civil mooy citoyenneté yow memba boo waree nekk sénégalais day fekk am nga kayitu judd parce que kayitu judd mooy base bi ñuy defaree sa carte d'identité mooy base bi nga mën a amee permis de conduire mooy base bi nga mën a amee passeport mooy base bi la mën a identifier comme un sénégalais comme un individu bu bokk ci réew mi ñun nag sunu état civil informatisé wuñu yi ci ëpp suñu état civil amuñu ay base de données yu ñu sauvegarde c'est vrai ji da caare kaw tey euh, boo xoolee deux mille vingt et un ñun fiñ toll nañu ba àgg dans les années mille neuf cent quatre-vingt-dix mhm. informatisé nañ ko ñu ngi continuer di dem ci année yi ko yi gën a jiitu mais registre yi nga xam ne fa la ñu bind juddu nit ñi heure bi ñu ko détruire kenn mënatul am kayitu juddu te demoo tribunal mooy boo demee mairie ba bëgg renouvellement kayitu juddu doo ko am mooy ni kon say mhm. xale yi bu ñu waree defee entrée en bu ñu defee entrée en bu ñu war a defi baccalauréat mënatuñu am baccalauréat bu ñu war a def ay examen ay concours mënatuñu am ay kayitu juddu pour mën a def concours bu ñu war a am carte d'identité mënatuñu am carte moo tax may ñaan may ñaan les jeunes ñu prêter une attention particulière au mairies yi nga xam ni man dama ni du alalu jàmbur alalu ña koy yàq la te ñooñu koy yàq bu subaa ñoom ñooy ci gën loru il faut que jeunes yi dégg boobu appel hmm. mairie yi ñu épargner leen ndax boo demee mairie doo fa fekk maire doo fa fekk personnel municipal hmm. doo fa fekk personnel politique loo fay fekk mooy sa kayitu juddu bi nga xam ne yow yaa ko moom hmm. nga lakk ko te boo ko lakkee di ko soxla ci soxla bu jàmp te su boobaa maire da naan demal tribunal juge kese moo la mën a autoriser waat pour ñu mën la inscrire ci euh, registre bi te reconstituer registre mm-hmm. day nekk loo xam ne dina jafe lool ndax registre normalement mm-hmm. dañoo war a nekk ñaar benn des à la mairie bi ñu des chaque fin d'année ñu yóbbu ko ci juge bi donc juge bi vérifier ko donc ba euh, ba greffe bi def ci son tampon denc ko au tribunal mais gis nañu depuis année yi mujj yëpp léegi euh, tribunaux yi dañ ñoom amuñu fu ñu denc registre yi jóge ci mairie yëpp kon na ko maire yi denc ci seen biir mairie mairie mairie nag ah état civil ay bureau la am parce que état civil parce que euh, parce que ay registre yoo xam ne la depuis bi mairie bi existé la ba léegi boo demee ji dacaay rek depuis 1996 lépp luñ fa note ci ku judd ci ku décédé ci ku ci ci ci ci ci certificat de mariage ci certificat euh, façon këyit yi mairie di defar yëpp bëri na parce que bis bu nekk mairie dina def mairie dina def lu mu gàtt gàtt gàtt cinquante këyit bis bu nekk dinañ def cinquante këyit yu génn yi saa yi mu àgg cent këyit yuy génn par jour loolu nag boo ko lakkee ñëpp war a dem tribunal dina métti ci askan wi mm-hmm. moo tax encore une fois may lancer un appel solennel mm-hmm. aux jeunes et aux populations mm-hmm. nañu épargne mairie parce que la ma gis démb ñu def ko mairie Diamniadio la ma gis démb ñu attaque ko mairie Parcelles ñu attaqué ko mairie Pikine ah bu woyee ce sera un affaissement de l'état civil au Sénégal et à ce moment-là le pays va rentrer dans des difficultés insurmontables mbokk yi yéen a ngi seen émission gox bi tey ñu am ci mbégte bu yaay itam di ci dalal ki nga xam ni moom moo di docteur Cheikh Dieng tudd na ko moo jiite bokk moomeel bu Djiddah Thiaroye Kaw ci commune bi lañuy def am na ay acquis yu bari dañ naan léegi dañuy jël modèle sax ci mairie Djiddah Thiaroye Kaw monsieur le maire yéen yoon tey nga jaar tey ba mun a am ak yu mel noonu. ah waaw maa ngi lay remercier loolu wax fa dëgg yàlla donc euh, ça correspond à une réalité. parce que mairie Djiddah Thiaroye Kaw dañoo jóge fu sori. dañoo jóge fu sori parce que nous sommes une population de cent vingt mille habitants. muy ci commune yi gën a yaatu ci Sénégal ba mu daj. ñu nekk ci commune bi nga xam ne aussi dafa nekk à la croisée de beaucoup de difficultés en particulier les inondations yi nga xam ni dafa doon affecté quatre vingt pour cent de notre territoire mm-hmm. tey boo gisee plan Jaxaay boo gisee plan Tawfeex la fa nekk à euh, à plus de soixante pour cent ñoo xam ni ñu ngi leen génne ci de ci de caaree kaw mm-hmm. ñu nekk ci commune boo xam ne également amuti ressource boo jëlee mairie plateau boo jëlee mairie Grand boo jëlee mairie Hann boo jëlee mairie Mbao mairie yoo xam ne am nañ ay possibilités de générer beaucoup de ressources te mairie ji da caare kaw nekk vraiment dans une sorte dortoir boo xam ni am na difficulté pour nga mobiliser fa ay ressources yo am solo hmm. ñun nag fa dëgg yàlla mu nekk ñu nekk ñoo xam ni dañoo màggee yaroo nekk ci difficulté yooyu bokkoon si ñi nga xam ne seen kër dafa impacté wu ci inondation ñu amoon gis-gis bu leer nag balaa ñuy ñëw ci mairie bi ni dinañ am ay priorité te ñu am courage 2014 ba léegi ñu fixé ci programme euh, du gouvernance bi nga xam ni moom lañ proposé woon population yi avant ñu ñuy fal benn ñu ne éducation suñuy doom mm-hmm. dañoo nekk ñoo xam ni dañ leen doon sacrifier jidda caaree kaw boo xoolee classe boo ci jël mhm. diggante sixième ba premier classe boo ci jël lum gàtt gàtt gàtt am na cent sept élèves mooy effectif ba ba ca ah, xañ na amuñu doole tabax ay yeneen école yu bari wante dinañ travailler sur la qualité dinañ travailler sur la construction d'un citoyen bien formé demain programme bi ñu njëkk yëkkati ci commune Djeddah Thiaroye Kaw mooy dañoo mooy dañoo jël dañoo jël fanweer ak ñett étudiants mhm. wutal leen ay bourses au niveau supérieur ni bala cinq ans yi jeex am nañ objectif bu tabax cent jeunes yoo xam ne dinañ am dinañ nekk ay cadres de haut niveau master la duñ la jàppale benn at bàyyi la déedéet topp première année ba master de pour construire des cadres boobu programme tey euh, dépassé nañu cent personnes yi nga xam ni amoon nañu objectif ni mhm. dinañ am master de et les premiers master 2 donc sortent cette année mhm. ñu ne également au niveau euh, de l'école secondaire mhm. dinañ def ay filets sociaux parce que bari na ñoo xam ni dañ doon jàng ma troisième dañuy jàng ba ba ba àgg trois euh, ba àgg cm mm-hmm. wala dañuy jàng ba àgg première donc du ñu amati diffi problème euh, ñu am difficulté fay seen scolarité pour mën a àggale seen scolarité. Mm-hmm. ñooñu également ñu signer une convention avec une école. Euh, privé mm-hmm. donc di recueillir ces élèves vulnérables di leen réinjecter dans le circuit autrement ils allaient perdre totalement leur scolarité. ñu ngi koy def depuis maintenant quatre ans. Mhm. depuis quatre ans on a eu plus d'une centaine de jeunes yoo xam ni xañ seen njàng na naroon na yàqu. Mhm. ñii am nañ bac ñii bi amee BFM. Ah, ils ont pu. ñu réorienter leen mhm. réinjecter leen dans le système parce que am nañ BFM ñu man leen a donc orienter ñu duggaat dans le système public parce que avant ils étaient dans le système privé ñu ne également au niveau primaire foofu am nañ fi difficulté yu bari parce que wax naa sur sureffectif des classes ñun lu ñuy def mooy dañuy def ay cours de vacances ak ay cours de renforcement systématique donc chaque année trois mois vacances dañuy jël ñaari weer ñu delloo ci élèves yi classe laaj tous les parents d'élèves kan moo bëgg sa doom ñëwaat def euh, cours de vacances. Mm -hmm. chaque année nous avons entre trois mille quatre mille ba parfois dina ak cinq mille élèves. boo ñëwoon biir vacances école Salif Ndongo école 27 da nga naan yow yaa ngi biir année scolaire. Okay. parce que euh, cours récréation bi day fees dell ki élèves. Mhm. chaque année ñu jël nag ay maîtres yoo xam ni c'est des maîtres officiels. Mhm. ñuy jàngale ci classe yi mairie bi fay leen. ñuy jàngalaat xale yi pour ñu def rattrapage scolaire wala ñu def anticipation scolaire parce que programme boobu dañ ko liggéey ak inspection de euh, l'éducation et de la formation qui suit les programmes des cours de vacances et qui nous aide sur le plan pédagogique à ce que li ñuy def mu répondre aux normes édictées par le ministère de l'éducation nationale ñu ñu ni classe seconde classe première classe terminale aussi chaque année dañ ciy def ay cours de renforcement mm-hmm. pour aider les élèves yi nga xam ne ils ont des déficits scolaires pour que bu ñu demee examen ñu mën a jaar mm-hmm. loolu yàlla dimbali ñu ci mm-hmm. depuis daaw 2014 ñu ngi nekkoon quinzième sur les seize communes de Djeddah Thiaroye Kao en termes de performance scolaire depuis daaw nous sommes deuxième maanaam li nga jumtuwaay yi nga dugal tey ci njàng meeg njàngale mi sa commune mooy fay mooy mooy fay dañuy gis ni tey suñuy élèves ñoo nekk deuxième sunu collège de Djidda Thiaroye Kaw moo nekk le premier en termes de résultats scolaires au niveau de tout le département de Pikine ñu boole ko également aussi ak un programme ni c'est vrai ñoo tabax fépp mais dinañ tabax ay classes ñu jël ci suñu budget dem euh, au niveau du PNDL tamit ñu jàppale ñu ñu tabax euh, trois classes supplémentaires au niveau de de école euh, Cheikh Tidiane en S école sept toutes les toilettes des élèves des des, des écoles. Mhm. yii ñu defal ko ci suñu budget yii sur sur le pro euh, sur l'ONG plan ñu jàppale ñu financièrement ñu defaraat toutes les parce que école yëpp benn amatu ci woon ay toilettes fonctionnelles mais surtout ñu jël ci suñu budget ni les inégalités sociales yi nekk dans les écoles dinañ fexe ba briser ko parce que élèves yu intelligents yu baax mais seeni waajur. amuñu bë amuñu tax ba bu ñuy ñëw classe dañuy am benn genre complexe parce que blouse yi dañ ko doon jaaye trois mille cinq cent deux mille cinq cent AP yi ñoo ko doon defar ñu nungu loolu ci AP yi ni léegi mairie bi mooy defar dix mille blouses chaque année dix mille blouses yooyu ñu wër école yi compter chaque classe ñaataa fa nekk ñu doter chaque CGE d' autant de blouses nécessaires nombre d'élèves yi yi fa nekk mhm. boole ci nag école euh, école franco arabe yi chaque année ñu jël dix franco arabe yoo xam ne parce que ñoom dañoo bari mhm. donc mënoo leen matal comme ni nga matalee école publique primaire yi mhm. donc chaque année ñu am yeneen franco arabe yi ñu fi jàppale bourse yooyu dañ koy joxe yi ñun gratuitement leen nag joxe leen ko élèves yi téeméeri dërëm cinq cent francs mais 500 francs yi du des ci mairie bi day des ci keesu CGE bi. télécole ñu koy. day des ci eh, télécole ba. Mm-hmm. bu ko defee ñoom ñu ci mën a fay ndox. ñu ci mën a fay courant. Mm-hmm. ñu ci mën a fay gardien. déjà depuis daaw bi ñu gisee sax ni am nañ difficulté. di matal courant beeg ndox mi mairie bi daf ko jëlaat ñu koy fay ci budget mairie bi. li ci des léegi li ngeen jëlee ci 500 francs 500 francs parce que bu école boo ci jël am na 600 cent élèves mhm. multiplier ko par par par cinq cent francs mhm. donc dafay nekk six cent mille euh, yoo xam ni mhm. CGE bi am na ko pour mën a juste prendre les petits frais jënd craie jënd craie fay garu mais lépp li am solo ci école bi dañ koy ci suuf parce que man damay campagne dama doon budget mairie ji da kaw bu nekkee cent francs ñu naa jël quatre-vingts francs yi def ko ci école élèves yooyu duñ ma fal mhm. élèves yooyu duñu voté mhm. wante dañoo am vision dans dix ans dans quinze ans dans vingt mhm. ñu tabax des citoyens bien instruits des citoyens de qualité de citoyens yoo xam ne dinañ bokk ñi gën ci ñi gën ci réew mi parce que il faut pas qu'on se dans la banlieue nous sommes tous issus de familles vulnérables tous damay faral naan ku sa nekkoon millionnaire juddoo dans la banlieue yaa nga juddoo Point E yaa nga juddoo Fann yaa nga juddoo feneen wante sama baay millionnaire la fii laa juddoo amul dans la banlieue donc ñun ñëpp ay famille vulnérable ñoo fa nekkoon donc le seul moteur qui nous permet ñu passer de familles vulnérables à des familles euh, de classe moyen wala de classe aisée mooy ñu investir ci suñuy doom pour que ñoom ñu nekk des cadres pour que ñoom ñu mën a am des positions professionnelles qui leur permettent et c'est ça la vision que jeunes yooyu investir ñu nekk ay cadre bu ñu mën a dimbali seeni rakk ñu mën a dimbali seeni waajur ñu mën a ñu mën a nekk des soutiens de famille qui vont la l'ensemble de la famille vers le haut parce que dañoo gis politiciens yi ni ñoon ni ñuy liggéeyee mooy yow Mbemba sama militant nga. Mhm. dama lay jox quinze mille dama lay jox vingt mille dama lay jox dix mille pour téye la mhm. mais du ma jël sa doom jàngal ko pour que quinze mille yooyu vingt mille yi ma lay jox mhm. ma def ko ci sa doom ba sa doom mën a mën a màgg suba yor la yor ay rakkam yor ay jarbaatam euh, et c'est ça qui permet d'avoir donc euh, une élévation quantitative ay jeunes yu bari bàggandoo ay jeunes yu bëri tekkeendoo ay jeunes yu bëri amandoo mën a aussi nekk ay modèle dans leur quartier parce que boo jëlee benn xale nga jàppale ko ba suba mu nekk cadre am un bon travail di euh, di euh, di fayee ko salaire jënd oto di ko gaara ci buntu këram succès boobu day nekk un modèle day nekk une référence ba ci quartier am quartier bi du ñu fanti jeune bi nga xam ne dafay rasta euh, di di di nekk un grand du ñu fan jeune bi nga xam ne donc c'est le c'est le plus grand lutteur du quartier mm-hmm. wante dañuy fan jeune bi nga xam ni mm-hmm. donc dafa nekk un cadre di di di dawal oto di takk cravate di wàcc ka ñëw mm-hmm. xale dañ naan dañu am ay modèle référence dans leur quartier et c'est ça qui est le fondamental mais yemuñu ci éducation ci côté boobu dañu également ñi nga xam ne yàlla def na seen njàng soriwut mhm. parce que et là nous avons la cible des jeunes filles parce que nous savons mhm. que les inégalités sociales mhm. dañoo nekk noo xam ni ci famille yu ci ëpp papa day liggéey yaay day liggéey kon ku yor kër gi mooy xale bu jigéen bi parce que il faut que mu am ku toog ci kër gi di togg kër gi di bale kër gi di di toog kër gi et souvent xale bu jigéen bi lañuy ñuy sacrifier au détriment de xale bu góor bi mu dem jàngi pour que xale bu jigéen bi toog ci kër gi donc ka toog ci kër gi noonu njàngam yàqu ce n'est pas de sa faute c'est les contingences familiales qui ont fait que moom moo toog ci kër gi ñu ni dinañ def une filière de formation professionnelle kaay leen kan moo ci bëgg a def coiffure kan moo ci bëgg a def hôtellerie restauration yaay yaay choisir filière bi nga bëgg et là ñu ñu ñu ñu wute leen ay bourses de financement mmh. dans les centres de référence muy centre Eva muy centre Khadimou Rassoul muy muy centre Giga pour que ñooñu ñu mën ay diplôme professionnel te yàlla daf ñu ciy dimbali daaw ñi nga xam ne ñoo ci génnoon restauration fukk la ñu woon neuf yëpp am nañ tey salaire di jënd saaku saaku ceeb di ko di di di ko yóbbu seen kër mhm. ñi ci des coiffure lañ def ubbi nañ seen salon coiffure bopp et cetera mhm. l'expérience a tellement bien réussi que dañ ko démultiplier nous avons un euh, une cohorte de soixante dix jeunes filles soixante dix jeunes filles yoo xam ne mairie bi dafa jël seen formation en charge entièrement fa ñuy liggéeyee même kudd bi nga xam ni moom la ñuy utiliser pour seen besoin euh, donc pédagogique mm-hmm. mairie bi moo koy assuré ñun li ñu leen ñaan rek mm-hmm. mooy deux ans yi nga xam ne dañ koy def formation à jiga mm-hmm. wala deux ans yi nga xam ne dañ koy def euh, dans l'école de restauration donc bi nekk euh, à à mm-hmm. réussir seen deux années pour que ñu mën a nekk euh, ñu mën a am métier et ça c'est ñu ñëw ci wàllum santé mu nga xam ni nekk na point bu am solo wala pareegoo ci éducation l'autre aspect c'est le cadre de vie l'environnement je suis environnementaliste de mmh. métier. Mmh. nee naa léegi nous avons quatre vingt dix pour cent de notre commune qui était dans les inondations. Mmh. je pour assurer le bien-être des populations. lu ëpp solo mooy sécurité. maa ngi maa wax léegi ci ci introduction bi par rapport aux émeutes. sécurité nekkul domaine boo xam ne mairie yi ñoo. ñoo ko la police et le préfet. wante dañuy mën indi sunu contribution. en quoi faisant mooy l'éclairage public te jidda caare kaw foo ko doon déggee dans la presse da dégg da nga fay dégg agression da nga fay dégg assassinat ndax lëndëmaay bu lëndëm bu commune bi lëndëmoon lëndëmoon nous avons fait presque six mois d'investissement ci biir post Corail balaa ñuy mën a génne lumière parce que le système d'éclairage électrique était par six mois. Hmm. lépp lu ñu am dañ koy def ci poste courant yi pour que ñu mën a defaraat déjà parce que poste courant bu boo ci duggee day am ñaari comportement. Hmm. bii comportement Senelec moo ko moom mooy éclairage bii dem ci euh, ci kër yi bii comportement mairie ñoo ko moom foofu da nga doon fekk fii lii di lànk alors ñu ñëw defaraat foofu ba mu jeex mais defaraat un programme de rénovation de l' éclairage public fexe ba fu lépp fu lamp nekkoon. ñu delloo fa lampe muy tàkk. Mhm. muy boo jëlee quartier yu mel ne Bagdad da gis benn poto lampe di nga daw deux cent mètres doo gis benn poto lampe buy tàkk donc entre les deux poto lampe donc tu as tu une grande obscurité boo xam ni. Mhm. mën nañ fa def lu la neex fépp fu poto Sonatel nekk on n'a pas le droit mhm. mais dañ fa xëcc fil taf fa lampe pour que. yi saay sax étage jàmbur la ñuy jël ñaan ko pour man faa teg benn euh, benn lampe pour mën a leeral ruq-ruqaani parce que sunu mbedd yi ni ñu bindoo mm. dafa nekk mbedd yoo xam ne tracé wuñu leen bu baax souvent mm. donc tey Bagdad la fay nekk ci lampe à plus de trois fois la la fa nekkoon extension du réseau d'éclairage public la mm. loolu bokk na ci li nga xam ne tey tax na nit ñi mën a xëy suba dem julli ji sa jàkka ja nit ñi mën nañu xëy suba cinq heures du matin jël seen panier dem jëli kaar te te du leen agressé mm-hmm. le cadre de vie également ñu nekkoon dans des zones ñi nga xam ne ce sont des zones euh, ay maison abandonnées mm-hmm. Mousdalifa da da nekk un quartier emblématique bi bu may jël chaque fois un exemple mm-hmm. boo ko seetee nekkoon na quartier boo xam ni tey boo amoon cinquante mille soo fa bëggee parcelle boo demee ñu jaay la parcelle ndax quartier sous les eaux barax bi lëndëm gi xaj yi yeewi lu nekk mais ñu ni dinañ transformer le cadre de vie. yaa ngi ci. def ay canalisation secondaire on a eu la chance donc dans le cadre du projet bi euh, l' defar une canalisation principal boo xam day jóge Djiddah Thiaroye Kaw dem ba Malika pour drainer les eaux de plus loolu c'est le programme bi yokk ci plan euh, jaxaay bi nga xam ne moo defoon bassin yi donc te Djiddah Thiaroye Kaw am na ñeenti bassin dans dans am na ñetti bassin dans notre commune. donc le bassin de Djiddah le bassin de Ñetti Mbaar la bassin de Bagdad. bassin yooyu ak yeneen yi nekk yëmbal yi nekk. Euh, Euh, yeneen communes yi mhm. Gounass et cetera projet bi dafa leen euh, lëkkale mhm. def ko benn canal donc bu yóbbu ndox taw bi euh, à la mer à Kër Massar mhm. day ñun mais loolu c'est pas suffisant parce que Mousdalifa n'est pas relié au canal Bagdad reliéwul au canal Léona reliéwul au au canal donc nous avons construit près de cent cinquante wala deux mille cinq cent cinquante j'oublie un peu le chiffre mhm. de canalisation secondaire mhm. yoo xam ne ñooy drainer ndox mi di ko génne ci quartier yi di ko indi dans le canal principal gis nga ren Djidda mhm. Thiaroye Kaw moo doon nekk capitale inondation Foumassata école euh, Salif Ndongo école euh, vingt sept dafa daa fees ak ay réfugié ak ay ñoo xam ne nit ñi euh, ndox mi dafa nungu seen ren amuñu un seul sinistre un seul. donc jëloon ngeen matuwaay yëpp bu yàgg. parce que hmm. canalisation yi ñu ngi koy defar depuis 2014. Hmm. ba ren bi ñu amee taw bu metti bi il nous a zone yi nga xam ni dese nañu fu mel ni Darou fu mel ni benn zone Messere fu mel ni yenn zone yi ci Bagdad. Hmm. ñu def ay moto pompe parce que foofu ndox mi moom mooy ball. di envahir kër yi. Mhm. donc il faut que ñu def système pompage mais cadre de vie. Mhm. la ñu yokk tey aussi ay espace public. ces maisons abandonnées mhm. ay yenn quartiers yu mel ay yenn zones yi nga xam ni c'était des zones criminogènes dañoo ñëw dégager ko defa ay espace public yoo xam ni ils sont largement éclairés ba loolu sax day soutenir activité économique bu tey boo demee espace public bi nekk tali bu mag ñoon la na meloon daaw jékk ak ni mu mel ren mm-hmm. da nga naan c'est même lieu mm-hmm. bi ma doon xar kanam bi bi ma doon romb xar kanam mu jëdda caare kaw mm-hmm. la ñu changé totalement du point de vue du cadre de vie et ça nous avons une brigade di euh, d'environnement boo xam ne tey chaque jour ñooy dugg ci marché su su nit ñi. moo ko fa sànc. bi moo ko sànc. mairie bi ay agent yu mairie bi fay la. ñoo mhm. xam ñoom ñooy balayer marché bi. les grandes place publiques les grandes artères de temps en ñooy def ay opération accompagner nag wax fu dëgg yàlla loolu aussi il faut que ñu remercier ci jeunesse Djidda Thiaroye Kaw. Mhm. il faut ñu remercier les femmes de Djidda Thiaroye Kaw. parce que tey tali karaw yi nekk Djidda Thiaroye Kaw. Mhm. grande artères yi ñun dañuy obliger sax duñu mën a suivre tey. pour mën a doter toutes les associations de femme de matériel chaque année nag ñu jël fukki association de femmes mhm. wala de jeunes jënd matériel complet wala ren ñu sommes appuyés sur la coopération avec la avec euh, l'ambassade de Pologne mhm. je les remercie au passage ñu jàppale ñu ci ay matériel de nettoiement ñuy doter mhm. les groupements de jeunes les groupements de femmes loolu tey dafa changé xar kanamu Djeddah Thiaroye Kaw yow boo dëkkoon jël Thiaroye Kaw nga génn ko dem France ba deux mille vingt et nga ñëw fa di nga am difficulté ni man sama kër. xàmmee ko ni man sama kër fii la nekkoon da ngay réer ci biir jë jëdda taare ko tellement le cadre de vie a changé a mhm. waaw ba tey ci cadre de vie maa ngi la doon junj sànq ci li nga xam ne moo jëm ci wàllum santé euh, dañuy gis ni banlieue yi wala communes yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir banlieue dañuy am jafe-jafe trop ci li xam ne moo jëm ci wàllum pàcc ci wàllum santé ndax yi ni itam def ngeen ci ay jéego ci wàllu yu ni mel def nañ ci ay jéego yu am solo parce que boo demee suñu poste de santé yi am fa wéttéen mhm. am fa alcool dafa nekkoon difficulté donc loolu mooy programme bi njëkk a teg mhm. ni chaque année dinañ doter nos post de santé mhm. de de de de lot benn lot matériel boo xam ni moom mooy tax ba ñu mën a approvisionner suñuy pharmacie maintenant les euh, les comités de gestion ñi nga xam ne ñoo fa nekk di ko mhm. mais c'est un soutien qui permet de générer des ressources yuy faire fonctionner le poste de santé selon les modalités maintenant que le ministère de la santé mhm. donc a défini mhm. euh, récemment mais deuxièmement ñun am nañ problème accouchement aji da jaare ko bi ñëwee lu ñu def maternité bi nga xam ne dafa nekkoon au niveau di poste de santé Imam Kairé ñu daal di koy rénover totalement pour que mu mën a fonctionner mais deuxième maternité bi nga xam ni mës ta fonctionner ah mooy poste de santé euh, Thierno Niane bi nekk sant yàlla. Mm-hmm. également ñu tabax la maison de la sage-femme ba ministère de la santé man faa affecté benn sage boo xam ni moom moo koy. teewal foofu moo koy teewal foofu ba tey ñu man fa accoucher alors que c'était pas possible deuxième élément bi ñu def ñu gis ni poste de santé amoon nañ ay charges yu dis ñu ni ñun dinañ recruter ay personnel de santé yoo xam ne mairie bi moo leen di fay ñu metti leen à la disposition des postes de santé ñu defal defal nañ ko Imam Kairé defal nañ ko poste poste de santé santé yàlla defal nañ ko institut de pédiatrie sociale bi nga xam ne mi ngi biir Jidda Thiaroye Kaw mais également ñu recruter le personnel le bi nga xam ne moom mooy nettoyer les postes de santé chaque poste de santé ñu wutal ko ay femmes de charge yoo xam ni maire bi moo leen di fay affecté leen à l'infirmier chef de poste ICP bi muy surveiller liggéeyam pour que ñoom ñuy def nettoiement bi mais au au plan également donc euh, de la de la configuration sanitaire nous nous sommes battus au niveau du ministère de la santé ba carte de santé bi nga xam ni moom le ministère de san de la santé def environ une fois tous les cinq ans ñu mettre ko à jour. Mm-hmm. ñu fexee ba le poste de santé Imam Kairé nekk un centre de santé ñu waxtaan ak les euh, ak le médecin euh, de district lan la laaj ba loolu bi ñu ko waxee. ñu am une coopération avec donc des des amis yu nekk en en Italie mhm. ñu wut matériel bi nga xam yëpp soxla woon na ko ba def ko ci poste de santé bi ba jàppale wàlla yeneen poste de santé yi nga xam ne ñu ngi biir Djidda Thiaroye Kao malheureusement mhm. malheureusement le ministère de la santé donc ba léegi effectivité wu carte sanitaire boobu mooy jël poste de santé Imam Kairé def ko centre de santé mhm. en y affectant un médecin ba léegi di defaguñ ko eh, loolu wax fa dëgg yàlla médecin chef bu bees bu ñëw mu pose ko comme une revendication fondamentale des populations de Djiddah Thiaroye ko parce que mënoo imaginer ñu nekk cent vingt mille habitants ba pare euh, ñi di waa Gounass mhm. ñi ci ëpp ñi si ëpp bokk à quatre vingt dix pour cent poste de santé Imam Kairé mooy seen centre de euh, référence mhm. foofu la ñuy fajoo jee donc une telle population mënta am un seul médecin bu fa yendoo di fa euh, di fa fanaan c'est inadmissible dans la répartition de la carte sanitaire de ce pays et c'est vraiment l'occasion ma lancer un appel solennel au ministre de la santé Diouf Sarr ni ko poste de santé Imam Kairé na ko ériger effectivement na rendre effectif donc son statut de centre de santé mm. en y affectant le personnel euh, nécessaires en termes de médecins mmh. donc pour que ñu mën a jël correctement en charge mmh. la santé des population mmh. loolu daf ñuy may ñu daal di waxtaanee xam nga ni ak covid bi coronavirus bi ak ñombe yi nga xam ne itam def na ko euh, ba tax na njiitu réew mi indi na ay vaccin ngir askan wi mun a dem ñàkku ji xool nu ñuy gën a mun a randalee mbas mi euh, moom indi na ay vaccin ba tax na sax ñaax na sàkku na si yéen ñi nga xam ne ay bokk moomee li ngeen joxe exemple monsieur le maire xanaa yow ñàkk nga war a mën a jox exemple ñuy yem si topp ko. Euh, avant de venir au vaccin je pense que sur la question de la Covid. Mm-hmm. donc euh, on a eu ben, une action à deux temps de gouvernement. Mm-hmm. première vague bi. j'étais de ceux qui avaient félicité Diouf Sarr. Mm-hmm. ceux qui avaient félicité le président Macky Sall. prise en charge bi nga xam ni gouvernement bi. defoon bien sûr il y avait des manquements que j'avais dénoncé mmh. principal manquement bi ma dénoncé woon mooy la répartition du fonds force covid mmh. quatre milliards lañ ci joxoon santé def ci 69 milliards euh, Mansour Faye mmh. pour pour mu jënd ci ceeb ak diwlin je trouve que c'était c'était extrêmement déséquilibré au au contraire quatre-vingt-dix pour cent des des des des mille milliards dañ ko waroon consacrer à tabax et à améliorer mm-hmm. le plateau médical donc des structures sanitaires ñu opter résolument pour avoir suffisamment d'hôpitaux suffisamment de centre de santé suffisamment de centre techniques pour prendre en charge les malades étant entendu que le niveau d'infection bi ñu amoon au Sénégal mm-hmm. on pouvait le régler à travers un plateau médical qui soit adéquat mais mais quand on n'a pas suffisamment de respirateurs. Mhm. loolu moo tax nga gis deuxième vague bi donc ñu am autant de morts tey rek. Mhm. on a eu décès. Mhm. de la force Covid et lu ko indi décès yëpp boo ko tey boo koy gis c'est parce que on n'a pas de suffisamment de respirateurs. alors que des étudiants ont conçu des modèles de respirateurs. qui sont de fabrication locale. qui peuvent être il fallait juste que le ministre de la santé accompagne mhm. initiative locale yoo xam ni jeunes yi jël nañ ko pour que ñu mën a au plan local que la Covid soit un moment où on restaure notre système de santé qui est désuet qui est actuellement en deçà des ambitions des des Sénégalais mhm. par rapport à leur loolu ñaxtu woon ci euh, première ci prise en charge première vague bi mm. mais globalement mm. donc le ministère de la santé avait bien travaillé dans la prise en charge bi nag et ci première vague boobu mm. commune u Djeddah Thiaroye Kao là aussi je que ça a été commune de référence parce que ñu bari ñi nga jël dugal leen ci mairie bi ñuy ñaw ay masque yooyu mel na ñu ci bari euh, fànn woowu leen gis ci mairie Djeddah Thiaroye Kao bañ roy ko mais mais tout à fait nous avons di c'est une contrainte bo bu fi am. Mhm. nan lañ ko transformer en opportunité. mais dañoo dañoo tabaxaat suñu budget ni nous avons la responsabilité de protéger suñu population. Mhm. lan la ñuy def mooy dinañ fexe loo xam ne gouvernement bi mataliwu ko parce que gouvernement mënut a matale lépp. Mhm. ñun ñu jëm ci def suñu loxo ba matal ko au niveau de la commune de Djeddah Thiaroye Kao fu gouvernement bi defee ceeb. ñun ñu anticiper balaa ceebam di ñëw ñu dem ci daara yi dem ci jàkka yi jox leen ay rasokaayu loxo ba mu mat jox leen ceeb ak diwlin ba mu mat pour que ñu mën a toog seen kër xale yi bañ a bañ a génn mm-hmm. ñu ne am nañ problème masque parce que temps yi yi ñu ngi jar benn téeméer. Mm-hmm. ñu jël cinquante tailleur yi nga xam ni day seen seen activité dafa. dafa dafa taxawoon complètement mm. à cause du ralentissement de l'activité économique jël suñu salle de délibération transformé ko en atelier ni ku nekk indil sa machine mairie mooy jënd matériel bi parce que matériel boobu dañuy xool prescription ministère de la santé en termes de qualité du tissu mm-hmm. donc ñu jënd matériel bi ci war yëpp ñoom ñu leen nag jox matériel bi ñuy produire ñu leen di fay ba ku nekk tey boo lu lu gën ndaw booy wàccee. mooy hmm. dix mille francs par ñu génne ko ci tailleur bu bu nekk. ñu def ci cent mille masques. Hmm. dinañ fexe ba ku nekk ñu fekk la sa kër. ñu utiliser la jeunesse de ci de jaaree hmm. ñu dem ci kër délégué de quartier yi ñaata famille ñoo nekk ci sa quartier ñu wàññi famille yi na mu toll ñu jox la ñii cent mille masques ñii deux cent mille masques ñii cent cinquante mille masques par quartier ba cent mille. Euh, ba cent mille basques yi mat donc au niveau de l' ensemble de la commune de Djiddah Thiaroye ñi am nañ mille ñi am nañ deux mille ñi am nañ deux mille cinq cent masques dans chaque quartier. Mhm. amul kër goo xam ni masque yu Djiddah Thiaroye Kao commune Djiddah Thiaroye Kao dugg fa ñu ñu doter les populations de masques ñu ni dañuy ubbi école bi ñu dem waxtaan ak le euh, l'IEF. Mhm. ñu jox ñu le protocole sanitaire bi nga xam ne moom la ministère de la santé. et là aussi. Mhm. il faut vraiment déplorer. il faut déplorer. Mhm. l'inertie bi nga xam ni moom la ministre de l' éducation nationale àndal. Mhm. parce que mënoo yow en tant que ministre de l' éducation nga yilif daara yi muy daara yu mag yi muy daara yu ndaw yi. waxtaan ak sa collègue ministre de la santé lii moo war. pour que élèves yi mën a jàng en toute sécurité. nga croiser les bras ni mënuma ci dara. wala nga nga croiser les bras ni maire yi def leen ko mais mel na jox maire lañ koy defee c'est irresponsable de la part du ministre te tey boo gisee le syndicat génn temps yi passe syndicat enseignants yi génn di déplorer mais la faute c'est le ministre de l'éducation il faut qu'on ait le courage de pointer du doigt la faute moo waroon dem ci président de la république ni ko sama école dañoo dañoo war a jàng defoo une reconstitution du fonds force covid ah. want il faut ban nga jox ma budget bu doy pour que protocole bi nga xam ne moom la ministre de euh, de la santé génne ma man koo matal ci école yi pour mën a protéger mais enseignants et mes élèves day fekk ministre de l'éducation jàpp ni moom moo njaboote élèves yi moo njaboote enseignants yi waaye du ni maire yi dem leen euh, man mënuma dara donc ñun bi école di tijji dañoo matal lépp li nga xam ni moom la protocole sanitaire bi santaane hmm. jox ko élèves yi jox ko jox ko jox ko personnel de soutien yi nekk ci élèves yi lépp mat hmm. tey tey fi tey hmm. boo boo demee ci école yi nga gis ay raxasukaay loxo masque yi nga xam ni moom la mairie ji dacaare kaw joxoon joxoon à ses élèves maintenant euh, poser nga question ci deuxième vague bi mu ñëwee vaccin bi dañoo gis ni président Macky Sall da ci raxas loxoom gouvernement bi da cee raxas loxoom benn mesure lañ jël et une mesure que man j'ai été parmi les premiers à dénoncer c'est un c'est le couvre-feu mais à part fi feu bi waxoon ci deuxième vague bi lan la gouvernement bi def pour jàppale askan wi. ah ñoom nee nañ dinañ ko alléger di Antoine Félix loolu la wax. dañ ko dafa warul woon dafa warul woon parce que c'est une mesure c'est une mesure contre-productive contre-productive mooy ni boo ci jublu lii safaanoo ngay am. non seulement tu as tous les contre-effets au plan économique, mais même au plan de la maladie. Au contraire, c'est justement le contraire de l'ignorant def. Parce que on n'a pas suffisamment tiré les leçons de la première vague. D'ailleurs, nekk ci une économie fragile. D'ailleurs, on a faut que nous, bala bala ñuy xalaat maladie dañuy xalaat lekk ak naan ba pare c'est-à-dire que moi je dis on se trompe de priorité Si pour les Européens, la santé est la priorité, pour nous les Africains, manger et la priorité. Pour nous les Sénégalais, manger c'est la priorité avant la santé. Parce que bon, de toutes les façons. Mmh. Donc, comment faire fonctionner l'économie dans un contexte de Covid Non, là, nous allons réfléchir à la deuxième vague. Mhm. loolu allons tirer la leçon de la première vague. Parce que la première vague, l'État a toutes les mesures, parce que ni avons dañoo des chiffres pour commencer à révolter le mhm. président. Donc, nous tirer la daal nan la ñuy fexe ba économie fonctionner dans un contexte de Covid ñu ne on a vingt quatre heures nan la ñuy utiliser vingt quatre heures yi nan la ñuy fexee ba ñii di liggéey suba hmm. ñii di liggéey ngoon gouvernement bi accompagner leen parce que le danger hmm. les les facteurs qui favorisent la propagation de la euh, du virus de la Covid hmm. c'est les rassemblements c'est tàncaloo nit ñi mais tàncaloo ñu boo ko bëggee éviter da ngay ba vingt quatre heures ñu koy utiliser au lieu nga ni damay réduire vingt quatre heures yi def ko dans des journées qui s'achèvent à dix sept heures au marché mhm. donc képp ko war a démarché war ngaa démarché balaa dix sept heures mais quinze heures seize heures nit ñi dañuy tàncaloo ci biir marché yi dañuy tàncaloo ci supermarché yi parce que bala se balaa dix sept heures supermarché bi war naa tëj pour que nit ñi mën a ñibbi ñay jaay Sandaga ñay jaay Sandaga ñay jaay Colobane mhm. ñëpp seize heures dix sept heures ñu wàcc mais bu ñu wàccee mhm. ñëpp day jibi dans la banlieue. Mm-hmm. oto donc dañuy tàccaloo ci car ci ci arrêt car bi. dañuy tàccaloo ci biir car yi. que qu'on n'a pas suffisamment de de de transport. Mm-hmm. amuñu assez de car amuñu amuñu assez de car rapide amuñu assez de taxi. kon dañuy tàncaloo. Mm-hmm. ci arrêt bi mais dañuy tàncaloo waat ci biir car bi. donc avec le couvre-feu. tu as un effet qui produit le contraire de la nga bëggoon. et c'est à ça que certains Sénégalais mhm. commencent di douter naan mais lii un esprit qui réfléchit mhm. xel bi xalaat est-ce que man naa nungu di maladie bi sax am na mais ñii dañuy tàppale mhm. maladie bi amut foofu la suspicion sur l'examen même de la maladie génne parce que les gens se rendent compte que une mesure aussi idiote mais nan la ko gouvernement bi mën a jëlee ba pare naan dafay protéger les populations contre la contre la propagation de la COVID-19. Okay. Alors, mmh. nous arrivons maintenant mm-hmm. à la phase de mm-hmm. vaccination. Mm-hmm. Et ça, je crois. Euh, communication bi. wax dëgg yàlla des na lu bare bare bare parce que dañoo nekk dans un hmm, dans un contexte. où tey nous avons une forte défiance. nous avons une rupture entre le gouvernement. et le peuple sénégalais ndax tey Macky Sall wax nit ñi lu ñu gëm ministre de la santé mënut wax lu ñu gëm ku fi des mooy docteur Boussa. Mhm. mooy professeur Seydi. Mhm. et ça a été bien et jusqu'à man personnellement ak ñu bari ci sénégalais. Mhm. kan lañ doon xool ndax dina vacciné wu professeur Seydi la. def na ko. professeur Seydi. mooy nekk la référence. kañ doon kan lañ xaar mu. vacciné wu hmm. mooy tey les leaders religieux mooy ni on est dans un on est dans système de déficit de légitimité grave hmm. de la part de des leaders politiques professeur Seydi va vacciné wu hmm. dina inciter ju bari ñu vacciné euh, sëñ Bass Abdou Khadre gis nañ ko mu vacciné et ça c'est l'occasion de dire dégg naa ay <laughs> ñu naan ëskee Mbàkke <laughs> ñaqul ñaqwaa leen nga ñu suñu <laughs> Abdou Xaadir ñaqale waa ñaq ñaqale waa loolu ñaqale waa loolu murit dafa ñaqu yaramam pour wax yeneen murit yëpp nañ dem ñaqu ji kon xanaa yow di nga loolu parce Mbàkke ñaq bon en fait euh, là il y a un peu de, de, des problèmes sur lesquels il faudra revenir. Mhm. Maintenant, vaccination bi commencé na nous avons au total cinq cent trente quatre mille vaccins. Mm il faut aussi que le gouvernement tienne un langage de vérité aux populations. xam nga li indi problème dans la démarche du gouvernement. Mhm. mooy le manque de transparence dans le langage. Mhm. te moom nee transparence la woote pour ñu def ko. il y un manque de transparence dans la démarche. nous sommes dans une propagande. Nous avons besoin de 6 800 mille vaccins pour avoir une vaccination efficace. Mmh. Parce que vaccination, il faut 80% de la population pour qu'elle soit efficace. Mmh. Ça, c'est les données donc, que, que, les techniciens de santé nous disent. Mmh. Nous sommes 16 millions d'habitants. Nous avons besoin de 6 800 000 vaccins. Il y a 200 000 à 324 000. nous avons 524 000 vaccins au total qui sont disponibles mmh. dans le pays. Matawul. non mais on n'a rien. on n'a rien boo nee ñu dem leen dem leen fa fa vacciné wu bu ñu ñëwee duñ fa gis vaccin non cest dire que il faut que on tienne au langage de vérité. tey ñi nga xam ne ils sont les cibles prioritaires. nañ dem vacciné wu. et nañ leen consacrer vaccin yi. Il y a un abus dans la démarche de diir au maire, allez vous vacciner. Si le maire va se vacciner, mais sa population ne peut pas vacciner, là, la vaccination maire Bob de Djari. Soyons logiques, soyons méthodiques dans la démarche. Personnel médical, demain vacciner. Xool leen seen ministre dem na vacciné wu seen chef de service yi dem nañ vacciné wo kon vous les médecins vous les infirmiers vous les personnels de soutien dans les hôpitaux allez vous vacciner parce que ku feebar day ñëw hôpital vous êtes les premiers exposés ñooñu nañ vacciné wu ci et c'est curieux nga dégg les de cinquième année tey ñuy ñuy ruer dans la brancard di xataraayu ni dañoo bëgg a vacciné wu te amuñu ay vaccin et dans le même temps le gouvernement dit aux populations allez vacciner benn kuréel di nga fa fekk vaccin moom lay wax la l'incohérence dans la démarche méthodologique étudiants médecine yi ils sont prioritaires par rapport au maire le maire mais c'est c'est un citoyen comme le journaliste comme toi c'est un citoyen comme euh, comme comme euh, comme les autres mais qui est plus exposé aujourd'hui que les enseignants qui sont chaque jour devant cent jeunes yoo xam ne chacun est un porteur sain du virus personnel enseignant yi dañu war a vacciner dégg nga le CUSEMS e a fait le bilan de la mortalité parmi nos universitaires et parmi les professeurs et les maîtres qui sont dans les classes c'est une cible prioritaire on n'a que cinq cent trente quatre mille vaccins nañ ko jox ñooñu d'abord xam nga il faut que dans ce pays. Mhm. on apprenne à dire la vérité. Mhm. et qu'on ñu bàyyi propagande. te gouvernement yi ne propagande la. Mhm. amool que cinq cent trente quatre mille vaccins. tu mobilises des ressources pour faire de la publicité pour faire de la une campagne de sensibilisation ci dem leen va vacciné wu. te ko def vacciné wu du fa vaccin. ñu xoolaat seen taxawaay. ce n'est pas cohérent ce n'est pas méthodique. il faut que le gouvernement apprenne à travailler de manière méthodique de manière cohérente pour que mu mën a réconcilier wu avec le peuple sénégalais. Mhm. alors monsieur le maire bi mooy xam naa dernière question bi waxtu wi tënk nañu euh, gis nañ fi lim fi yëm lim yëpp ci commune bu Djiddah Thiaroye Kaw réalisation bilan bi kon dafa mel ni buñ tëggaatoon élection yi monsieur le maire euh, dafa mel ni da ngay sampaat sa nënd. waaw élection moom wax fa dëgg yàlla ñun dañoo tàmbali liggéey dañoo tàmbali liggéey mhm. xam nañ li ñuy def bari wante am nañ luñ bëgg a mottali mhm. ah loolu eh, j'ai l'habitude mhm. le président de la warut euh, a weesu ñaari mandat autant je dis député warut a weesu ñaari mandat autant dañoo war a généraliser la limitation des mandats à tous les niveaux à ñaari baat man je pense que ni mhm. ah am nañ lu ñu mbébét lu ñu tàmbali mhm. mbébét nag du àgg jamais mhm. ak loo mën di liggéey dangay bay sa waar rek pàcc ci sa yéene li ñaan da ngay génn sa askanu yéene jagleel ko sa population mais àla kul al di dem te keneen dina ñëw def lu gën lu gën a baax li nga def donc ñun hmm. incha allah. Hmm. dinañ nekk candidat hmm. pour une deuxième mandature. pour que ñu mën a àggale yenn chantier yi. mën a ubbiwaat yeneen chantier. yoo xam ne ñi topp ci ñun dañuy ñëw àggale ko. bu soobee yàlla. loolu vraiment sama conviction profonde. et même au niveau de l' administration. man gëm ni. foo na koo directeur général. wala directeur national d'un service. mu def fukki at. il a atteint niveau de la waroon indi. dañ ko war a changer def yeneen ñu gën a ndaw ñu gën a jeune ñu gën a xarañ ñu ñëw àggale liggéey ba nga xam ne de defoon nañ ko il faut qu'on apprenne à limiter les mandats qu'ils soient des mandats électifs qu'ils soient des mandats nominatifs au niveau du Sénégal monsieur le maire lu ñu cërale woon ci waxtu daanaka jeex na ñu bàyyi la nga tàggatoo ak euh, suñu mbokk auditeurs yi ak askan gu jiddee caaroy kaw alors euh, tàggatoo dañ koy indi ci question bi nga xam ne jotuñu ko aborder muy la question de l' actualité politique mm-hmm. liée à l' affaire Sonko. Mm-hmm. Mm-hmm. mais benn rek laa la fay ñaan appel bi nga xam ni euh, la médiateur de la République woo na ko njiitu réew mi pour mu àddu jëmale ci askan wi ndax d' accord nga moom ci wàllu woowu. Euh, donc je pense que da damay tënk sur les fondamentaux. donc du problème. pour dire que arrestation Sonko bi nga xam ne ministre de l' intérieur donc moo ko. moo ko santaane bërki démb mhm. après des provocation yu mu def mhm. ci euh, bi muy wuy ji mhm. euh, à la section de recherche préfet de Dakar def excès de zèle ñoom ñaar nañu tirer les leçons de leur implication direct dans les émeutes yi nga xam ni moom la ñuy vie ñoo xam ni ils ont fait une faute lourde qui ont entraîné les conséquences des émeutes que nous voyons bëgg leeral ne cette question là de l'arrestation de Sonko. Mhm. dafa nekk donc euh, une étincelle. Mhm. qui a fait exploser une poudrière bu nekkoon en ébullition depuis 2012. Mhm. ébullition boo xam ni dafa am ay succession d'illégitimité ay déficit d'illégitimité cumulé depuis 2012 illégitimité ak des difficultés au plan économique président Macky Sall dafa enfoncer le Sénégal dans une récession sans précédent, avec donc un plan Sénégal émergent qui est tourné vers l'exportation de nos ressources financières en direction des entreprises étrangères. tey bu gisee TER mënuñu la wax mille deux cent milliards la mënuñu wax mille cinq cent milliards mënuñu la mille six cent milliards mais c'est près de un tiers de notre budget boo xam ni daf koo jagleel ay entreprises françaises mu nekk autant de ressources qu'on qu'on expatrie mhm. du Sénégal boo jëlee noonu mooy autoroute bi boo jëlee noonu mooy centre Diamniadio bi mhm. toutes les infrastructures de grande envergure mhm. dañoo faire appel à des sociétés étrangères et loolu moo rey le tissu économique tey boo gisee président dafa digle dafa digle woon sept cent mille emplois dans son premier mandat il a fait moins de cent mille emplois et il a perdu plus deux millions d'emplois parce que toutes les PME toutes les PMI dañoo entrer en récession dañoo tëj muy un premier contentieux économique entre le président de la République et le peuple mu am des contentieux politiques ñu jóge ci élection yoo xam ni quatre candidats yi pré yi jàkkaarloo le président Macky yëpp dañoo contester son élection à l'issue du scrutin. rax ci dolli ni dafa éliminer une vingtaine de candidats à travers le parrainage. ba tànn quatre candidats yi nga xam ni. ñoom ñoo ko ci neexoon wala mu mënu leen éliminer comme le cas de Sonko. donc mu jàkkaarloo moom. mu nekk un autre élément de contentieux politique mu am yeneen ñaari candidats qui les principaux challengers kenn ki mu créer une crise exécrable. utiliser le bras armé de la justice mhm. di Karim Wade éliminer ko de manière illégale mhm. kooku am nañ tey treize condamnation du verdict bi nga xam ni moom la CREI génne pour réhabiliter donc euh, pour dire que le jugement est mauvais et le PDS gis nga ko bërki démb mhm. président Abdoulaye Wade mi ngi ci génn communiqué réclame encore et encore donc euh, li nga xam ne moom la ci ONU wax muy la révision du procès de Karim Wade ñu mën koo mhm. mettre à jour mais en même temps ñu utiliser la justice pour éliminer le candidat Khalifa Sall qui était aussi un challenger principal donc mu nekk un contentieux lourd mhm. politique mhm. entre le peuple sénégalais et et euh, son président de la République euh, Macky Sall à cela s'ajoute les les contentieux en termes de gestion ñu gis 94 milliards yi nga xam ne Ousmane Sonko daf ko tuumaloon Mamour Diallo. justice daf ko écrasé ñu gis dossier pétrole bi nga xam ne dafa impliqué woon le petit frère du président de la république justice daf ko écrasé ñu gis ñi nga xam ni eh, eh, corps de contrôle dañ leen a épinglé. tu le cas du de l' ancien DG du COUD. au au lieu d' aller au tribunal président Macky Sall dafa leen promotion muy gestion wu maa tey lu ma neex laay def ku ànd ak man. dara du la dal waaye ko àndul ak man nga nekk opposition dama lay bundu xatal dama lay tëj kaso bi dama lay dama lay dama lay euh, dama lay ñoñoña donc tous ces contentieux accumulés tey moom la arrestation euh, Ousmane Sonko mm-hmm. euh, def étincelle ba ñu gis émeute yi nga xam ni wax fa dëgg yàlla donc nous regrettons mm-hmm. toutes ces violences là et nous les condamnons parce que nag mhm. bien ay sénégalais la ñuy yàq. Mhm. yow tey mënoo mu ni man ngaa ñibbi sa kër ak sa oto te te duñ ko toj ci mhm. duñ ko toj ci yoon yi. tous ces bien la ki sont détruits dans la rue. ce sont des ce sont nos propres biens c'est les biens des Sénégalais il faut qu'on arrête ces cas alors. ñu ni kon euh, président Macky Sall dafa war a génn. mais dafa war a génn dans quelles conditions. tey on a vu une malheureuse. du ministre de l'intérieur mu génn. accuser les jeunes de terroristes accuser les parents d'incapables ñoo xam ni yaruñu seeni doom mhm. mooy koo xam ni dafa jete de l'huile sur le feu à travers un discours gauche et malheureux mhm. président Macky Sall war naa gën wax nit ñi lu muy wax ak nit ñi c'est ça le faux mhm. je pense que il y a des mesures fortes que le président de la République doit prendre buy génn lu mu war a wax mooy benn je libère tous les prisonniers politiques mhm. ñu dem fanaani seen kër mhm. y compris Ousmane Sonko mhm. y compris Guy Marius Sagna y compris donc ñi ñi ci am tur yëpp benn deuxièmement je renonce de manière solennelle au troisième à la troisième candidature pardon parce que c'est un contentieux lourd bu am entre le peuple séné le peuple sénégalais et ses dirigeants troisièmement je remets les compteurs politiques à zéro mooy kii di Karim bi nga xam ni euh, quoi qu'on dise c'est le principal parti d'opposition moo nekkoon seen candidat en 2019 kii di Khalifa Sall nga xam ni donc moo nekkoon le maire de Dakar nekk député mm-hmm. dinaa utiliser les mécanismes législatifs euh, pour que ñu mën a réviser seen procès wala ñu mën a delloo leen leur droit civique poli leur droit civique Donc, je nomme un médiateur. Et c'est là où est la difficulté. Mhm. Parce que pendant que ce ne faudra pas que le président parle. Il faut qu'on trouve des mécanismes mhm. de ramener la paix sociale, mhm. la paix des cœurs dans le pays. Ban médiateur les donne les, les religieux. Taï, euh, dégg nga sëñ Abdou Samad mu def déclaration bërki démb ne xalif général des Mourides lépp la mënoon wax ak Macky Sall wax na ko Macky Sall da ko joxul cër mhm. wegu ko mhm. moo tax ba mënatul wax mhm. gis nga la xalif des des des Niassène nee na wax na Macky Sall wegu ko jox ko cër je suis sûr que xalif général des Tidiane bu waxoon il dirait la même chose mooy que ni kon Macky Sall a disqualifié les religions man je pense la proposition bi may joxe mooy ñu xool ku mel ne président Abdoulaye Wade kooku di c'est un sage C'est un sage. Mm-hmm. Il a traversé toute la construction de l'opposition démocratique au Sénégal mm-hmm. depuis 2012. Il a été le président de la République. bi Macky Sall tollee fi mu toll le 23 juin. Mm-hmm. il a il avait eu l'intelligence de trouver les ressorts qu'il fallait pour désamorcer la bombe sociale. et je pense que tey ah depuis que khalife général des Mourides defaat les liens avec le président entre le président Macky Sall et le président Abdoulaye Wade. tey te opposition je suis sûr ñëpp jox nañ cër président Abdoulaye Wade boo xam ne mm-hmm. tey bu ko Macky Sall seeti woon mm-hmm. def ko le médiateur mm-hmm. euh, social président Wade waxuma ci moom nag je suis sûr que moom euh, engagement am ak bëggee réew mi toll na foo xam ne dina jëlaat son ballon de pétrin de pèlerin dina woo ñam war a woo ñëpp dina ci dugal xalif général des mourides dina ci dugal le pôle religieux dugal ci tous les acteurs sociaux pour que ñëpp ñu mën a am ensemble une solution de sortie de crise qui permette uh-huh. de restaurer la paix la sécurité uh-huh. et de ramener la sérénité dans les cœurs parce que fi ñu toll xol yi jóg nañu uh-huh. yi tàng nañu il faut que ñu am ku ñu mën a diglu koo xam ni bu waxee donc wax ji dina mën a dugg ci xol yi moo loolu lay ñaan président Macky Sall mu mën a génn dans court délai. Mm-hmm. ñeenti point yooyu ma wax. Mm-hmm. mu wax ko ak sénégalais su boobaa bu incha allah dinañ am une sortie de crise. ñu koy sant di ko gërëm bu baax a baax moom docteur Cheikh Dieng nekk bokk moomeel mu commune bu Djiddah Thiaroye Kaw ñu leen di sant mbokk yi di leen gërëm bu baax di leen jox dig daje beneen dimanche ak beneen invité fii ci rajo Rewmi FM.